mais rëg-rëg jom ji dafa am rëg-rëg boo ko gisee rek boo gisee muy bëri gis ko si étoile bu mu nekk dafa nekk yoonu nekk roi des arènes non da koy nekk moom rëg-rëg day nekk roi des arènes hmm. waaw c'est un futur roi des arènes parce que si loolu lay doxee si loolu lay jëfee si loolu lay waxee si entraînement rek nëbbutu lëlu di compétir benn mbër ëpp ko fi doole ëppoo ko fi gàllaaj xelal caaroy baa ngi noonu xoolal ma lii ndeysaan sotteeku na ko ca dënn ba am na lum cay xool sex na sotte na ko ci ginnaaw hey rëg-rëg yaakaar naa ne bii mis ne day wax xoolal ma rëg-rëg jëlal ma xele bi jëlal ma xele bi lu muy def mu nga yëngatu rëg-rëg c'est un futur roi des arènes mosoon naa ko wax yaa trois ans si ginnaaw jour bii rëg-rëg gi Yékini di bàyyi làmb ñu invité ma à la TFM loolu léegi ça fait quatre trois ans j'avais dit que rëg-rëg sera futur roi des arènes archive yaa ngi fi gis nga bëri simple foofu la bëri bi nekk boo déggee formation bëri mooy bëri simple mais pour que pourquoi mënu leen a défier mun na leen défier parce que xale la te sport xale ma ne ku daan giri dee mënatul bàyyi kenn ndax làmbu caaroy faas dër bi la mënul ñàkk wax man comprendre naa loolu bu baax am na ay yoo xamante ni ci préparation bi doon nañu wax ay gros mots te garaawul parce que làmb la tey mi ngi nii man nag ni ma doon utiliser ak ñeneen ñi ma doon bëreel di leen daan moom mi ma daan noonu laay dundeek moom contrat moo ñu boole woon jeex na respect bu mat sëkk laay continuer dund moom di ko ñaanal nag li mu bëgg ci làmb yàlla demal ko waaw ah, nañu mën nañ bañ a jéggi borne yi parce que ñun ñëpp ñoo far. ah et Reug Reug aussi dafa nekk koo xam ne parce que doomi aadama yi itam lépp lu ko yàlla may dañ koy nangu boole nañu it ba suñu maam maamaat comme yàlla may bu mu ko may ci lambu simple wax dëgg yàlla mosuma ko gis mbor bu ko def ñetti at ñeenti at. bu fekkoon ne parce que amoon na temps da nga doon te àll ba e fii nga teere fii mais àll ba ak fii la yemale fépp mu dem vraiment yàlla may na ko ndam yooyu loolu itam e li ma mën a wax même parce que nit ki même soo ko supporté wul wala lépp loo soo ko bëggul sax waxal li nga xam ne moom la ko yàlla jox yàlla may na ko loo xam ne bariwul mbor buñ ko may mbor bu ko am noo bariwul li gis li ma fàttaliku ci ay lamb ak cosaan. mbir ma nag daa jeex coow li mu tuleeg man la ci réew mi promoteur bi ne Ama su bëggee ma jox ko rëg-rëg léegi amateur yi ñeen ñu bëri diggante Ama ak rëg-rëg dégg nga coow loolu. wax dëgg naa c'est normal xam na mbër la wax dëgg yàlla normal am na loo xam ne tey duma ma ko balaamee benn mbër parce que tamit man ba may dugg dugg si làmb dama si ay mbër yoo xam ne bëreeguma ak ñoom dama taxaw ne jox la ma bombaay gars yi tiit ne booy bi dafa dooj. te pourtant maa ngi def nank ndànk ba tey bis bis ñëw na ñu dem ne euh, euh, bombardier yaag Ama Baldé comprendre kon tey man tey mbër bu ma ko defee amul dara loo xam ne ma koy bu baax a baax di yàlla bu baax a baax xam na mbër yu fi nekk ñu tudd alhamdulilah damay sant yàlla bu baax. mais sa diggante ak Reug Reug actuellement ku ko doxal di nga bëreeg moom nii. non am na yoo xam ne rêve la Reug Reug mën a moom si kanam am na xam ne rêve la am na xam ne yow boo tëddoon ba guddi ñu la amaat jiw wala jiw jiw da jàpp ay ree waaw xam na tey tey tey moom champion la man du ma balaamel kenn champion am comprendre tey mënoon daje géej contact mu daan ma mënoon nañ daje si boppam bëri mu daan comprendre mun na maa daan mun naa ko daan bu sonn kon kon làmb kon xam dafa nekk milieu boo xam. man làmb day def lu bëri ak man man bañu ma ko bañu ma bëri ak moom pare naa pour bëri ak moom parce que làmb dafay dox te li nga wax ni dañ war a def grand contre petit c'est normal parce que ñun biñ ci toll dañu mayoon chance ñu bëri suñuy grand ñun tey gisuma lu ñu empêché pour ñu parce que yàgg naa ko wax sama interview nañu jël xale yi ci suuf ñu renforcer ci kaw sinon. ñun rek ñuy bëri suñu biir te ku yàggee nag day dem ba day soof amateur yi kon il faut jot na tey actuellement ñi si kaw ñi ñuy wax ténor yi ñu tendre la pêche aux jeunes ñu may xale yi sens ñu bëri bi si kaw lamb ji mën a am beneen ouverture mën a amaat beneen xar kanam. lamb yar parce que loolu wax yow loolu maanaam xalaatoon nga ni kii sa daan ci moom day yomb. waaw xam nga kenn ku ne yàlla suñu borom daa am lu la moo ñaale ñii dañ lay moo ñaale bi ñii ni lañ man mbëri kenn ku ne daa am loo man man yàlla suñu borom damaa moo mën a bëri poids lourd. nga mën a bëri poids lourd. lu ma gën a diis gën maa arrangé. ndax loolu yàlla suñu borom dama kaa moo ñaale. loolu la mais mais seen po dañ ñu di wax. loolu la ñuy wax rek mais ku seq ak rëg rëg géew ba di nga di nga tal leneen lu dul naan kii daa diis wala diisul. premier jàppante bi da ngeen ñu jàppante ñu àtte leen mu mel ni foofu da nga jéem dara tële ko lu waraloon foofu combat bi jeexam foofu. te loolu ma ko sax ndax boo xoolee sama loxo bi duggul loxo bi duggul loxo bi moo duggul moo tax ma téewaat waat bu mu dëgër doo kaa doo kaa zongale. bi ngeen dellusiwaatee. waaw bi ñu delluwaatee dellusiwaatee. te boo xoolee dama ko zongalee bi ma ko zongalee loxo bi duggul léegi ma xam ne moom poids lourd la ma ne xaaral ma tegal ko 16 ma tegal ko 16 mu jéggi seegi teggi bi nag waaw. loolu kon kon moom su ma la déggee am na lu mu am si bëri. waaw mais am na lu mu am am si bëri mais maanaam euh, xam nga nit ki kenn ku ne da ngaa am loo ne moo tax ma wax la ko moom am na lu ko yàlla mooy si bari ci vois oggi la kor la loolu la man waaw manuma kaa def ëpp ma doole maa ko ëpp doole du ma ko def. am na ñoo xam ne tamit nee nañ ci biir maanaam ci ci biir ci seen biir bëre pied bi mu sensé maanaam parce que dañ ne daawul bëree tànk boobu dañ doon gën la facilité jëli. non non man li ma jàng moom dafa faussé sa sama li ma jàng. waaw da kaa faussé ndax bu mu tegoon droite si lay gën a neex hmm. waaw bu tegoon gës comme bi mu mënee droite boobu bu ko mënee moom laa gën a moom laa gën a man moom laa gën a jàng. bu ma ñëwee si géej bi mu teggi ka nag sama fausse da sama li ma jàng dama xaw a nax mais xam nga man moom partout la foo ma coupe rek ma baatare. maanaam fu mu baat nga coupe man noonu laa mel quoi. léegi nga jóge sa nag daan ko coow li jóg Reug diw Reug diw adversaire yi ngay tuddal bari na ñu ngay tuddal ci làmb. non instant bii nag bu may wax ak yow bu instant bii Bombardier moo ma tere nelaw du keneen waaw ndax sama moroom dañ ma ragal. seetaan naa la nga wax ko Lutte TV de yàgg Lamine nga ne Bombardier yow maanaam Bombardier itam lu mu la teree nelaw. non teree nelaw damaa xam ne mbir dañ kar ragal man ñun ñëpp ragal damay am damay am envie bëreeg yow. Bombardier mosoon bëreeg moom Balla Gaye bëreeg moom Gris Bordeaux mu Lô nga ne dañ ko ragal. mais dañ ko ragal. nan dañ dem bëriwaat ak ñoom di mu jox leen seen i revanche wala ñu koy revanche jox leen ko. pour yow yow yaa ko ñime. man rek kaa ko ñime te si kattanu borom dinañ xam fu wane di mu wane di mu jëg bëtam. sa combat moom dañ koy dox. waaw ñu ngi si ñu ngi si daal ñu ngi si daal lu ma la mën a wax bientôt rek incha allah. am na ñoo xam ne dañ ne bomba ji daa bëgg woon parce que waru que dafa góoru tax mu war laa jël ak yooyu ñu leen la war a bëri. ñooñu seen ñoom ñoo wax noonu seen xalaat la ñuy wax mais làmb ji bombardier lu mu dax grand contre petit nañ ko war a def yaa ngi dégg Modou Lo kii combat la Ama Baldé Boy Niang Balla Gaye combat la Gris ah, Gris Bordeaux guy gi combat la. bilaay alam day kay fa naka la ko soobee naka la ko baaboo soobee kàlla bu ne kat si gerte doon batar lay. الإسلام من نور ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق المنور تحدث الكتاب تمثل متى من لا جد يمين تدابو يلا تراك الله تراك الفيفو تراك الفيفو ولم جوكو ولم جوكو جوكو ولا باندو ولا ساقو ولا ساكتبو أولي بي أولي بي أولي بي تعرفوا غير ما نتعرف فهو لا يكون ليش المعنى yaa ngi gëgg foofu de gëgg na ko de mel ni lii mooy MMA waa BMI di leen boobu Babacar doole doxul jàmm Babacar nag tey mooy def open press am gis nga mbooloo mi gis nga kër yeeg fu nekk la nit ñi taxaw taala taala yaa xool fu ne nit yéeg na fa foo xalaat rek nit yéeg na fa tey ci caaro yi du gis nga loolom